ak képp koo xam ne yaa ngi topp si sunnaam bi yomal qiyaama di ñaan yàlla boolu yàlla ñooy su boppam yàlla ñu xëye jaama indoo ko fanaanoo ko yàlla muy jaamal yàlla ñu defal jaama yokk ñu sutura yokk ñu kàttan ñu feebar nekk ci kër gi nekk ci lopitaan bi kuy am jàngoro kuy am métit yàlla na yàlla saafara yàlla na leen sago yàlla may ñu wér si barki fukki fan yi nga xam ne mooy fokki fan yi gën si at si at bi yëpp fi nga xam commencé nañ ko tey eh, tey di bés bu njëkka ah, si weeri zulhijja di weeri xaj mbokk julliti muy ayaamul achara mooy ne fukki fan yi nga xam ne yonent bi mu ne amul fan yu ko wala ay fan yu ko si at bi bon ngeneel baa ngoog mbokk julliti commencé nañ ko tey eh, tey si alxamis bi mbokk jullit di julli si bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa kiram ak saxaabaam ak képp ku amee topp sunnaam ba di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla defal jàmm di ñaan yàlla subhanahu taala lépp lu ñaan si fukki fan yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla subhanahu wa taala yokka suñu iman yàlla subhanahu wa taala yokka suñu taqwa yàlla subhanahu wa taala ubbil ñu bunti xeewal yi bunti warsag yi bunti jàmm yi jafe-jafe yi nekk si àdduna bi yàlla ko yàlla teegi yàlla na yàlla teegi jafe si àdduna bi si barke fan yi nga xam ne commencé nañ ko yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy jàmmal kum jàmmal nga am jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm si kaw suuf yàlla subhanahu wa taala muccal ñu si fitna ak musiba ak balaa seytaan yàlla subhanahu wa taala nangu ñu suñ jaamu yi lu si waaye mun def si jaamu rek yàlla ko nangu ñi dem maaka ñi nekka fii waaye waaye nekka rek di def lu baax rek yàlla ko yàlla fulaandil yàlla nangu ko mbokk jullit yi te nañ si góorgóorlu bu baax a baax a baax nañ leen si góorgóorlu du ne oor ko rek soo munta oor waaye jëf yu baax yi bari nañ bari julit ina juli si yonent bi salaa sallam saraxe comme ni ñu ko waxee démb rek ah kañ yu baax bari nañ ja dega sa mbokki julli te nga ne xaaral ma oo ko si fukki fan yi ñu jaamalante saafuwante ñaanalante lii yëpp ay la nga yek sa bu febar nga pour dem seeti ko yep macha allah muy jëf yu xam ne kenn mënu la wax waye ni ma ko waxee rek jëf yu baax yi nañ fukki fan yi diko double diko triple ah baakaar tamit noonu la foore yi tamit ñu war koo moytu rawatina nag jow jow yi mbokk jullit di wax si gannaaw nit ñi di tuumaal nit ñi di wax yoo xam ne dara nekku ci téye téléphone bi le si jamono biñ nekk nii mbokk jullit yi ah tabaski bi le ñi nga xam ne am na ñoom tappale lañ pare pour si tabaski bi pour am luñ tabaskee nuñ ko mun a amee rek baax na si tappale mbokk jullit nañ xam ne fan yi baakaar boo ci def subhanallah ken mun naa wax bàkkaar bu naka la toll si réyaal si réyaay dafa nekk bàkkaar bu rëy rëy rëy nit yaa bu si fukki fani, yi la si bakar bi emel, bon ñu war a moytu mbokk jullit yi ah kañ ñun ñëpp ñu dellu suñ bopp yàlla ñaan yàlla mi yombal mu yombal ñu suñ jamono bi nga xam ne alhamdulillah nu mel eh, rawatina li xew si kaw juli yi si mbiri aj bi yépp ñu ñaan yàlla subhana taala yàlla bu li amati waaw yàlla subhaana taala yombal ko jullit yi ñu ñëpp ñu mën a delluwaat eh, defis si li nga xam ne mooy farata xaj si loo xam ne duñ si am benn jafe maanaam xuyuut yi la maanaam eh, condition yi indi charte yi indi yoo xam ne digga digga digga jaarut yoon ñu ñëpp ñu bokk a ñaan ñu ñëpp ñu bokk a ñaan si fukki fan yi yàlla subhaana taala génneel ñu charte yi nga xam ne moom lañ teg si mbiri xaj loo xam ne bokku ci waaw ci ñaan ya, yàlla ya subhanahu wa taala ndax mu teggil ñu ko xakañ yàlla ya subhanahu wa taala moo ne adooni astajib lakum xakañ bokk jullit yi ñu ñëw si fukki fan yi nag nga xam ne fukki fan yi nag mu ñaan la ñu ñëpp nañ delluwaa suñu bopp si yàlla mbokk jullit yi ñi si tongoo ku si tongoo ak nit góorgóor nga juboo moom si fukki fan yi ah fekkee nañ ko ren ndax nañ ko fekkee déwén yàlla nañ ko fekkee ay fukki fan yu bare bare bare waaye lu jar a bàyyi xel la ne mbokk jullit yi képp koo xam am nga seeni xaar ma yàlla ah kañ góorgóorlu ngeen tuub ngeen saafu wante jégalante baalu wante mbokk julli si fukki fan yi ndik opportunité bi olof ne weer bi bu la jegeñee laal ko ndik bu la sorete rek xamuloo kañ nga ko jotaat bon nag yàlla baaxiwaat ñu ñaata nit ñoo bëggoon a fekkee fukki fan yi nga xam ne am na ñoo mi ne sax amaana duñ ko jeexal ah duñ ko jeexal yow bi yobelegi yàlla na fi bàyyi mu ngi la bàyyi sa kàttan bàyyi la sa sago bul delluwaatal sa bopp si yàlla subhanahu wa taala tuub jàng alxuraan istixfaar baalale jéegale jélale yëpp nañ ko def si bés bi mbokk jullit yi wala si fukki fan yi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla ñu koy nangul bon mbokk jullit yi ñu ñëw ak yéen li nga xam ne mooy tabaski lan mooy tabaski waaw tabaski mooy gaata bi ñoo rey bési ba pour lan jaamoo ko yàlla waaw te baski gaata la boo xam ne imma xar la moo gën soo amul xar bu góor xar bu jigéen bu amul xar bu jigéen nga am béy bu góor bu bu nga am béy bu jigéen boo amul béy ay jël nag nag bu góor nag bu góor nag bu jigéen doola na ñëw si gëléem bu góor gëléem bu jigéen yii mooy yi nga xam ne moom la ñoo rey tabaski bu dul lii leneen lu nit rey boo euh, bokk ci tabaski muy loo xam ne julliti si àdduna bi ñëpp ñoo koy màggal waaye moo commencé suñ baay Ibrahim alayhi salaatu moo ko commencé si boo xam ne rek si history boo xam ne ñëpp xam nañ jaar-jaar boobu nga xam ne yonte la Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ak doomam bu Ismaayil nga xool doom naka la neexee ci xol doom naka la neexee ci xol waaye gisa doom boo ko yaree si diine yar ko si li nga xam ne mooy yàlla xamal ko tawxiid mooy li ma dee woo fàttali suma boo di leen ko fàttali suñ doom yi nañ leen xamal kan mooy yàlla kan mooy yi nga xam ne mooy suñ borom xale bu laxi su xamee yàlla magee ko rek xale bu faa ragal yàlla xoolal Ismaayil ba ko waajuram demee dañ ko dema gënta pour ma rey la mu ne ko yaa abati ma maa tu'mar sa tajidni insha allahu min asaabirin wala rek ibrahim neegut pour rendi doomam waaye nettali na ko li nga xam ne moom la gis si géntaam bi mu ne ko ooy suma waajur ooy suma baay defal li la yàlla sant maanaam rendi ma rey ma di ma di ma fekk ma bokk si li nga xam ne aji muñkat yi lañ tey doomi tey sa pasu téye dara sax nga saaga ko daw wala sa pare pour xeex moom waaw doom boobu yaruñ ko si li nga xam ne mooy diine eh. yaruñ ko si li nga xam ne mooy tawxiid léegi-léegi ngay dégg si ñuus yi xibaar yi doom jàpp na waajuram dóor na ko rey na ko lii ngi koy dégg subhanallah déedéet nag tudd Ismail Ismail alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne si moom la lii faaxee ko tabaski waaye Ibrahim yonente doom Ismail nekk yonente allahu akbar loolu tawxiid moo leen ko may nga gis yonente la Nuux alayhi salaatu wasalaam nekk yonente waaye doomam bi mu jur nekk kaafir gis nga njub si loxo yàlla nekk alhidaaya bi yadillah yàlla jubal xoolal yonente Yunus yonente la Nuux alayhi salaatu wasalaam mu nga xam mu ngi oo doomam pour mu mucca si na boobu amoon maanaam si flotte boobu amoon ndox boobu nga xam ne dafa ñëwoon fees àdduna bi yëpp yonent di wax doomam ne kaay nga dugg si gaal nga ndax nga mucca xale bi ne déedéet ndik bokkutoon si moom xale bi ne mu nga egg si kaw si kaw mountain ba sa kaw doj ba mu ne ndox bi du fa eggi waaye fekk yàlla subhaana boole na ko si ñi nga xam ne dañoo lab si ndox boobu bon mbokk jullit yi ñu jàngee si ne yar lu am solo la yonteela Ibrahim alayhi salaatu wa salaam mi nga xam ne si moom la tabaski jógee yonteela Ibrahim bam buggee rey Ismail salaam si xisa boo xam ne daanaka ñëpp xam nañ ko yàlla mu ne fa fadaynaahu bi zibin azim loo tax loolu ne ma di beel Ismail jël Ismaïl indi fa xar ba jël Ismaïl teg ko place teg fa place ba nga xam ne Jibril mu ngi ko jëlee arjana yàlla subhanahu wa taala sowe foofu ki nga xam ne mooy Ismaïl si lan si gomam bu mot waa waaye tamit yonte la Ibrahim ak doom nu mu neexee yëpp yàlla subhanahu wa taala nangul leen seen kéene boobu nga xam ne amoon nañ ko si lañ commencé nag di ko dale si maam yonte la Ibrahim ba yàlla di jël àdduna ak li ci biiram ñu commencé di tabaski li nga xam ne mooy xar ak béy ak gëléem ak nag comme ni ma ko waxee bon bokk jullit yi yàlla subhanahu wa taala tabaski du ne reyle xar maa gën a jaamu yàlla la jaamu yàlla la boo xamee yàlla subhanahu wa sunna la boo xam ne yàllaa ko digaloon yonte la Ibrahima alayhi salaatu wasalaam muy sunna boo xam ne dafa war sunna waajiba dafa war maanaam bépp borom kër bu ko am la nag waaw boo ko amul nag waru la borom kër bu ko am di liggéey am ko tabaski war na la yàlla subhaana taala wax ci alquran ne ci suratul kawsar fa salli li rabbik wanhar mu ne yónni saa sallam julil te yàlla tax maanaam loota julli ku koy def ngistal rek yàlla du ko nangu mu ne wanhar na nga tabaski na bon yàlla subhaana taala mu ngi yónni saa sallam fii pour wane ne tabaski boo ko amee rek def la war bu amee njëgi tabaski te tabaskiyuloo yoon sa salam mune ne ko mun te defuloo ko mune bul jegeñ suñ kay ba sax bu bon boko juliti inshallah allahu ñu continuer yeen si tabaski li nga xam ne moo ci war e, incha allahu si dars yi nga xamé mu ni ñaan yalla subhanahu wa taala comme ni ko dee ñaané rek yalla ko yalla yombalal borom kër yi yàlla subhaana taala may leen luñ ko amee te mu nekk lu lew nekk lu dagan nekk lu xalaal ñu eh, eh, njëriñoo ko ak seen njaboot ak bépp jullit boo xam ne yàlla war sagal na ko si yàlla ko yàlla defal mboolem jullit defal ñu xéwali àdduna xéwali àllaaxira muccal si safara muy allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban wa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wa axiru alamin amin